salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy topp di commission bi di junnatun liman nazamahu ci ndigalul sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif sal de murid yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér ci liggéey bu rëy bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci dëkk bu sell bi di Touba mbokk yi tey jii ñu ngi ci quartier bu mag nekk ci ginnaaw Ngiraneen mbokk yi tey jii ñu ñëw fi di ajuma yemoo ak ña fanweeri fan ci weeru gàmmu ci atum 1446 dëppoo ak la 4 octobre 2024 euh, mbokk yi ku ne xam ne ne dëkk bi ndox a ngi fi moo xamante ni bii kenn xamagul noo koy def fii ñu toog sapeur pompier ay fan la fi am ndax ndox mi digganteem ak réseau ba war naa mat 4 kilomètres jàpp cinq kilomètres loolu lu naqaree lijjanti la nga xam ne ñaari étapes yi muy am benn bi day jëlee ci penc moom ak di évacuer fii nga xam ne moo ne suñ ginnaaw beneen bi di jëlee fii di évacuer ji fa nga xamante ne bii mooy fa réseau ba nekk loolu nag di liggéey bu métti boo xam ne laaj na ay moyens bokk na ci moto yi dem gaz waa koy dawal ñi ci nekk dañoo war di dund waaye borom kër yi ñu fekk daa am lu ñu yàqule loolu nag tax na junnatun li man nazamahu ci liggéey bu rey bi muy liggéey xam ngeen ne wet gu ne lan ca war a taxawee ña ngi ko cay taxawee ginnaaw bu Serigne Touba Cheikh mun Mountakha yëkkatee ab som bu rëy joxe ko bokki taalibe yi kenn ku nekk di volontaire xam ne kat ndakate sama mbokkum taalibe bu nekkee ci ay jafe-jafe man mii maa ko ci war a génnee kon dañuy daal doxantu ànd ak Serigne Sang mi nga xam ne moo nekk ci quartier bi di chef de quartier bi mu leeral ñu situation yi xam ne ci lañ toll suñu noppee ànd ak équipe technique bi nga xam ne ñoo ne ci terrain bi di Serigne Ahmadou Samb ak Serigne Alañang kon Serigne Sang ñu bëgg a xam rek quartier bi ñu nekk jafe-jafe yi nga xam ne quartier bi nga koy dund depuis le 22 ba nëga ni mu tawee ndox mu bari mii ak kër yi nga xam ne indi nañ fi ak penc yi nga xam ne ndox mi nangu nañ ko wajannatan li saalikin muridi wa jannatan an haadikin maridi wa marfaan li kulli haadi muslimin wa marfaan an kulli haadi mujrimin wa hajjatan liman bi quartier bi day euh, euh, nekk na quartier boo xamante ne sa taw bu njëkk ba lu mat euh, ñaar fukki nit boobu la ñu génnoon bi nga xamante ne taw bi dikkaat na nag fi mu lu mat cent et quelques personnes génn nañ ci quartier bi te dara waralu ko lu may li ko waral mooy ndox mi nga xamante ne yàlla daa dogal muy jóge fële ca ngiraaneen ca kan yooyu bu demee ba fees day ball ñëw fii bu ballee ñëw fii nag léegi day daal di jàll nag mooy dem ba kaw Kawsara mooy dem feneen foofu itam fokk ñu préciser ko saa boo nee Ngiraaneen dañuy jàpp ne Ngiraaneen fële si kër si Moustapha Mbacke rek la nekk fekk Ngiraaneen ruqu boppam la quartier si Mourtala dafay am kantul muhtadina am fa di quartier Serigne Diouf waaye quartier maam Astawal am fa ma féete fa man mii di Sang Diagne waaye quartier Kawsara nekk fi di Serigne Fallou quartier yooyu noonu ñoo lëkkaloo di benn eh, kuréel di benn gox waaye fii ñu nekk nag di quartier Mame Asta Walo ndox mi seen ngeen ko ni nga xamante ne noonu lañ mel nii waaye boobu ba léegi itam ñu ngi eh, jaajëfal di remercier ki nga xamante ne ñooy waa ci kanam ndax ndox mu jëkk ma joxoon nañ nu machine di eh, remercier itam ñi nga xamante ne ñooy waa ONAS Bamba joxoon nañu li nga xamante ne mooy racole yi ngeen di seen ñu tallal lan ko fi ba dawal si lu yàgg yàlla si dikk ak am ndoxam loola itam bi amaatee itam waa sapeur pompier fan yii yëpp lu mat ñeenti fan ñu ngi fii ngir bëgg ñu évacuer ndox mi ba am ndox duutu fi am loolu nag jàpp seen jafe bi indil koñ bi mooy kër yi fi nekkan yëpp nga xamante ne fii lañ daan suturloo ñenn ñi tey jii boo leen den xool ñu nga fu ñibbiwaat nañu seen i dëkk am na si borom daara yoo xëy ne daara yi ñor ak donga yi dañoo delluwaat jàpp ndal parce que amatuñu fenn fu nekk fii si Touba kon ay jafe-jafe yu bëri la am na si ñoo xamante ne tey jii lal yi ñu yorol ak mat laa yi ñu yorol seen i dus màbb nañu am na si kër yoo xëy ne miir yi màbbi nañu bâtiment yi màbb nañu buñu doxoon ci biir dañ leen ko mën a woon loolu nag ay jafe-jafe la ne bi mu amee ba léegi itam wax dëgg yàlla gis nañ ne kuréel bi nga xamante ne moom la si Muntaxa tànnal boppam tudde ko junnatu ñu ngi leen di suivre fu ñu mën a jaar gede fu ñu mën a jaar ñu ngi leen di seen taxawaay ngir bëgg nit ñi génn situation boobu nu nekk situation boobu nag boobu situation rek moo am fii la moo am fii la am feneen moo am fi fii nag dafa nekk loo xamante ne day gox boo xëy ne daa yaatu parce que du guy siyaare kese comme ni nga ko mel te guy siyaare kese doy na am ndox jafe-jafe yooyu mooy yi nga xamante ne moom la quartier bi yëpp amee ñu bëgg daal nu ñu mën a defee ngir yàlla ba lii mën fee jógee waa sapeur yi wax naa ko léegi ñeent ñeenti fan a nii dañuy xëy nekk fi ba ay zéro heure ñu doog a fee jógee taxawaay bu mat sëkk lañ ci taxawal te li ci gën a gaaw am na si loo xëy ne sax buñ leen ko bëggee defal dañuy ba ñoo koy defal seen bopp nga xam ne woole ko yar bi ak teggin bi ak yëg gi ñeeg ci doomu aadama yi ndax boobu ba léegi li ci problème mooy ànd ak capitaine bi ñu wër fi nga xamante ne fa la ndox mu war a jaar ak fi oto yi war a jaar ومسلكا لسبل اتباعي ومدركا لسبل ابتداعي ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل خير وسببا لفضل خير الغيب ñu taxaw nag sëñ àll te yaa ngi Kawsara di dëkkub sëriñ euh, Falilou Fall moom sëriñ Amdi euh, yasin Fall ñu euh, fekk fi ndox mu bari moo xamante ne bii sappool ñu ngi fi waaye lu am jafe-jafe la jërëjëf sëñ euh, falu Galas di la sant di la gërëm ci turu sëriñ bi muy Cheikh Mouhamadoul Mountakha moom Cheikh Mouhamad Bachir noonu nga ko waxee nag fii ñu taxaw tey euh, te ñëw nañ fi ay yoonu yoon keroog bi mbir mi xewee ba tey ànd ko jëmm ju tedd ji di sëñ Mouhamadoul Fadilou mii moom sëriñ Amdi Yacine Fall ak njabootug sëñ Amdi Yacine Fall gépp wànde ak njaboot geek mbokk yi dëkk fii yëpp ay yoonu yoon ñëw fekk ko fi war ne moom tamit ay yoonu yëkkati na tànkam ñëw ca commission ba dem ci kër sëñ ba ngir li xew fii maanaam mu di ko di ko di ko di ko biral loolu nag ñi mu demee sëñ Fallou mooy lii ñu gis rek di ndox mu baree bare mu nga xam ni fa muy jóge maanaam juddoowul fii sax waaye lu jóglu ne rek fii lay daanu si doon lu méttee métti ci ñoom nag lu tiis a tiis lu nga xam ne ñëpp war nañ ci ànd yenu yenul ko ko lii nga junjit nag booba ba tey ñu ngi ciy ami xalaat waaye ndox mi bari na fi bari gi nga xam ne dayoo bopp ñaare xalaat boo teg rek maanaam na ndox mi ñëwee day dem a dem ba loolu sax nga fàtte ko waaye nag terewul euh, ñoo ngi doon continuer di am yaakaar wax dëgg yàlla ci ndimbalul sëriñ bi ba nii nga ko junjee tey euh, sapeur pompier la ñu waxoon maanaam ma nga ca euh, guy siyaare maanaam teg fa électropompe bu mag a mag bu nga xam ne li muy génne ci ndox moom ay 6000 mètres cubes lay dégagé et autant pour moi 600 mètres lay dégagé boole ko conduite yu mag yu nga xam ne dañ koo teg ba yóbbu ko ca Oryx ba ci réseau ba nga xam ne moo jaaree ngiraan neen di jaar euh, ngelamu ngir ñu yóbbu ko kër kàbb ndax foofa ci woyefal kër ñan ak la jëm daaru rahman ak pof di nga xam ne yegg na fa fi mu ne lu baree bari ci ndox mi attanu ko foofu moo fi doon bunt bu nga xam ne mën nañu faa jëfe lu loo sàkku ci diisaay mën na faa jaar dem ndax kër kàbb ga mu jëm 60 hectares la ñu fa am huit ectare yi jotoon nañu ko aménagé la ca desit fi mu ne huit hectares yooyu ndox mu ci dikk bu demoon ba nar a toll sax mën naa wàlli ko dem ca carrière ba ndax loolu lépp ñu ngi koy fàggani ko jéem koo defar ba nga xam ni moom lii doon am ci daaru raxmaan ak Pobdi sax dootu fa am ndax yaatuwaay baax na tey fas nañu yéene ci eh, ndimbalu état bi waaye lépp ci ndigalul sëriñ bi ñu defar ko defar bu nga xam ni ndox yu bare bari yu jógee Tuubaa mën naa jaare foofa ba tax na fii ñu nekk ci kaw sara lee ñu teg cee guy siyaare ndox mi nekk fii bu foofa wàccee rek manees naa dandal si électropompe yooyu ci wet gi bu ko defee teg ko fi wala sax ñu ngi doon xalaat jël benn électropompe bu nga xam ne mooy bu Eiffage ba nekkoon fële indi ko teg ko fi wutal ko moom tamit ay conduite nga xam ni day gunge bale ànd ak moom ba lu mu jëlee fii maanaam tegal ko moto pompe boobee nekk guy siyaare booba jógee foofa demaat orsi ba nga xam ne ñoom ñaar sax mën nañu àndante dem loolu yaakaar naa ni bu mënta sotti tey ñi ngi ciy xalaat ak waa sapeur pompier ndax luñ ciy def rek ak lëkkaloo ak euh, service de l'état yi nga xam ne ci système de point ak stratégie bi ñu teg ñaare dañ ci jëflanteeg moom pour que benn talafu talafu ban cee man cee bañ a bañ a bañ am umma bi ñu baree bari dikk nañ ci yéeney sëriñ bi wax dëgg yàlla fekk si ko ci wante li may junj ak wax rek di ko biral mooy luñ ci def doyul taxawaay buñ ci def maanaam ci wàccaay la ñu toll wante yëggaguñu fa fa nga xam ne moom mooy saafara lii kon daal loolu nañu ko nañu ko nañu ko bàyyi xel ñu ngi ci vraiment ci ndigal ak ñaani kilifa yu tedd yi wax dëgg yàlla di leen masawu nag di leen masaw baax a baax ndax ñu nekkee moom mën a mënee su ko mënee su ko xayma fii ñuy junj maanaam bu ñu nee kaw day benn quartier yi bu ma ko doon li fi ne juróom-ñaari quartier yu nga xam ne lépp dëgg ndax daaru marnaan fettoo ngi nii forage bee fi mu ne fan yi ci conséquence yi mbënd mi fan yëpp ñoom ñi kenn naanul naan kenn defu ko ba démb woo naa ci sous-préfet wax ko ko ba mu yebal fi waa waa waa ñu tàmbali di fi indi ay camion pour que ñi naan ndax forage ba ndox mi di koo tëj mënuñu koo taal wande ndox mi gas na tuyau central ba nga xam ne moo départ ci ba indi ci ay jafe-jafe yi defaroon nañ ko dafa tojaatoon démb xam nga loolu kon conséquence bi ne kenn suuraale ko te pourtant am na am na fi wante boo ko doon topp quartier maam Asawaloog maam Jaaraak Kansul Moxtadinaak quartier eh, sëñ sëñ Mourtalaak quartier yooyu yëpp nañu jàpp ni situation bii nga nekk fii moo nekk foofu kon liggéey bu rëy a rëy rëy moo ñuy xaar. bi yaakaar naa sama jumbul mooy juróomi yoon yoo xam ne ñëw nañ fi. waxtu woon na ñu ngi fi ñëw di nemm ko du xool. di xalaat di dem. ngir nuñ mën a saafaraa ndox mi. waaw alhamdulilah rabbil alamin eh, ndax loolu rek. dafa dal am xel. maanaam nga ne ci ay tolof tolof nga ne ci eh, njàqare nga nekk ci eh, lu mel nii eh, nga gis ñoo xam ne waxtu ne ñu ngi ñëw ci yow di la ko loolu day dalal sam xel ndax dañu mel nekkoon kon yow ñu ngi lay bàyyi xel ba tax na loola rek sant yàlla bu baax lañ ci def nag ah ndox mi nag ah, mbirum suñ borom rek la yàlla suñ borom mooy seet moo yor addunaam te nu ko neex rek noonu la cay doxee am si loo xam jëfi suñ borom la fa lu limay yurid lu ko neex rek def loolu suñ suñu borom dogal na ñun dañu ci ànd bu wér a wér la ca teg nag mooy da ci am loo xam nag mbirum doomu aadama la yàlla da la koo bàyyee dafa laa dafa laa sàkk ngay nit mu jox la xel ngay xalaat lu ñëw lu nekk nga xool yow noo ko noo ca noo ca mën a defee ba ba ba loolee mu la teg nag nga fexe yow xool noo ci génnee loolu moom doomu aadama bi moom da ko bàyyee kon loolu nag bu waxtu wane nag ñoom ña nga ca nag wax dëgg fi yàlla ndax li mu ko wax nii léegi nag euh, barab yu bari ci dëkk bi lu mel nii ma nga ci ñoom xëy na euh, mënuñoo tëba tëb rek euh, dayanoo fépp dañuy def na fu ñu génne rek bu ñu jógee dem feneen fexee foofa saafarawu ñu génne fa dem feneen ñu génne fa dem feneen loolu tamit wax dëgg fi yàlla njanga ca kon nag la ca dolli ko mooy may soñu sama bopp rek da soñu tamit mboolem taalibe yi yoo xam ne ñoo ko seq ñëpp damay dus damay faral di wax ne makkatal mukarama gee mhm. la fa ne yonent bi defu ko fa mhm. yonent yàlla ibrahima defu ko fa ay doomu aadama képp ñoo ko fa def mhm. di ay jullit jullit yi nekk foofee nag ak doomu aadama yi ñoo nekk fii rek dëkk suñ tubaab bii daal man li ma gëm mooy ñun ñuy taalibe yi ñoo war a defar te defar nga ne kenn ko na nga tàmbalee sa bopp tàmbalee sa biir kër nga defar génn ci biti loolu buñ ko defee rek alhamdulilahi rabbil na ay ginne ay malaayika ak ay rab kenn du ko wàcc du ko defar ay doomu aadama rek la Makka daal nañ def ba walantoor ba mën a defar seen dëkk bee ne bi yi bu ñu ko defee mën a defar dëkk suñu tubaab yi kee mooy yonente bi kii mooy jëwriñam gis ngeen jamono yi jaar rek la fa amoon ci wàllum ndox lu wakk yenent bi daan xoolee suñu loo rek la man man nag laa ko jàppale doon gi mu doon yonente bi sa alayhi wasallam moo tax lu ñëw si moom rek faaw mu feeñ si kon nag alhamdulilahi sant yàlla baax daal di ñaanal suñu mu taxaam lool te ànd ko wér ak njabootu suñu tubaay gépp nag te xam ne ay diggante rek la léegi suñu borom saafara ko ñu ñoom ñi xam ñoom kilifa ñoom la ko sëñ bi dénkit ñoom it nañ ca guddi suba ak bëccëg ak ngoon ñi xool ni saytoo nuñ def ba ndox mi dem alhamdulilahi rabbil alamin fi ne wax wax fii kenn mënu fa woon accès mm-hmm. waaye nag waxtu bi ñu toll nii nag ba néeg na nag kër yaa ngi am ndox mbedd mhm. yaa ngi am ndox fees dell lu ñu ci waaye mën a dimbalu daal baax na mhm. bu loolu jàllee itam mhm. des na leneen beneen liggéey mooy pompe quartier yi ndax fii li fu nekk ci ay yoo gis nga gis nga fii nii daara fii nii daara alxuraan la fi ne kenn jàngatu fi gone yu ci ëpp fi ne si sibu tëdd sibru te dara waralu ko loolu yooyu moo ko waral kon nag luñ ci man ngir ñu mën a pompe ngir mënuñoo dimbali si xeetu jàngoro yooyu dana am solo lool kon nag alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax suñu fàllu ñu ngi lay sant di leen gërëm di ñaan suñu borom ah alhamdulilah lépp àgg si jàmm ak salaam rek واغفر لمن بنوا بنا أبر فيهم واغفر لمن أمرهم بي

noo ngi gërëm sëñ Muntaxa mbake yal na fi yàgg loolu te ndax lii lépp mooma ndax bu du ko moom kat dégg nga kon dégg nga du baax waaye nag noo ngi sant bu baax a baax a baax noo ngi noo noo ngi ñaan ah, yéen ñi nga xamante ne dégg nga commission bi ñu yabal leen ngeen wàññi ko ne nga dikk de nga di di di saytu ndox mi ah, fe fu taa fu ne ngeen taxaw fa guddi ak bëccëg nekk ca dégg nga di liggéey ah noo ngi leen di sant di leen gërëm. wax dëgg yàlla amuñu seen pay ndox mi de wax dëgg yàlla moom dafa bari lool la defoon ndax maanaam at yi yëpp at mu ci nekk maanaam mën naa mën naa ne ba ma ba ma tuxu see Tuubaa gi ak léegi ah, daanaka mën na fanweeri at waaye fii tey tey tey laa mas a gis da nga am ñu wàññi ko taxawal fi ab ah, ab pompe di ko pompe at at mu at mu mosaan jot mu ne suñ kër yi dégg nga da daanaka dañuy génn lépp at mu nekk nii nii la masa masa mel ndox mi ñaata weer la fi ndox mi daan dana dana fi am ma ñetti weer daana ko fi am waaw ndax ndax ndax bari rek waaw ren nag moom wax dëgg yàlla moom ah sant nan bu baax ndax yéen ba ngeen ñëwee def ngeen ci ay taxawaay yu ma sëkk wax dëgg yàlla maanaam yéen a pomp pompe te bari ngeen a bàyyi dafa sedd wecc wecc wecc wecc loolee nag am nañ ci ak cant bu baax noonu bëgg daal ngeen dimbali yi ngir yàlla ak jëmi sëriñ bi maanaam ñu sëkkal nu yoon wi ba nga xam ne oto yi dañ fi man a aw bu baax mooy yoon wi nga xam ne moo jëm Kër Bas ak euh, Kër Sëñ Moustapha mooy mooy route bii yéen a jooyee nag bëgg de nga am ku ñu ci dimbali mu àgg ak yoon wi nga xam ne moo jógee Darou Khoudoss euh, jëm jëm bàq ya. وزوجة

maskani al maskan al ghufrani wal rusli wal afani wal ridwani wa dar ikhlas wa sidq wa jannatan li salikin muridi wa jannatan